salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yen ci xibaar yu njëkk jëm ci tàggat yaram waaye laata loolee kuy gan ci page bi te abone goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné bës kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu door xibaar yi dooree ko ci Kalidou Koulibaly ndax kat foofee ca Napoli doomu Sénégal bi la tab tabb mu gën a xarañ ci weeru avril bi ñu génn moom mii di Kalidou Koulibaly moom nag la muy def foofee am na solo kon nañu ko ñaanal rek performance yooyee mu nekk moom mii di Kalidou Koulibaly mu wóyal ca ba am club bu mag boo xamante ni dina tolloo ak niveau mu mën di jël ay coupe ñu jugee ci Kalidou kulibali dem ca waa ñoom nag siiwal nañu stade bi nga xamante ni final Ligue des champions africaine fa la ñu koy amalee final boobee nag la trente mai la ñu koy amal bu 19 jotee fii ci réewu Sénégal stade ba ñu tànn nag ma nga ca réewu Maroc. tudd stade Mohamed V foofee la ñu koy amalee ñaari club yii nag ñoo koy final Wydad nekk ca Casablanca ca réewu Maroc mooy jàkkaarloo ak Al Ahli Al Ahli nag ma nga ca réewu Égypte ca Caire la club boobee nekk ñoom ñaar ñoo koy final Sénégal nag bu góon na sax daloo ko fii ci stade maître Abdoulaye Wade waaye kat kaaf dafa gàntal loole stade Mohamed V la ñu tànn nekk ca Casablanca ñu jugee ci waa kaaf jël doomu arsantine bii di Ángel Di maria bu ñu sukkandikoo ci góol góol nag site bu mag la buy wax ci mercato li mu xamle moo di kat Di María dina dem ca Juve ndax kat na ak waa Juve Guédiawaye la mu noppi nag ngir signé ko fa moo di benn at waaye benn at boobee nag dina am option un maanaam bu ko neexee bu at bi mu signé jeexee mu yokkaat beneen at kon moom mii di Ángel Di maria déwén ca Juve lay football moom mii nag samdi bu Paris di football mooy nekk matcham bu mujj ci mayo Paris moom mii di Ángel Di maria bu saison bi jeexee daf fay jugee kon dina tàggatoo ci fàttali nag moom mooy meilleur passeur ci club boobee di Paris ba Paris sosoo ba léegi la mu fa def ci ay passes décisives kenn mosu ko faa def 113 passes la fa def téeméer ak fukk ñett ci ay paas moom la fa def moom Ángel Di maria ñu jugee ci Di maria waaye yuufe googee duñu ko génn bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport doomu Croatie bii di Perisic moom nag juboo na ak club boobee di yuufe bu saison bi jeexee day dem foofee contrat ba mu fa nam mu signé nag mi ngi toll ci trois cent maanaam ñetti at la ñu ko noppi ngir fay ko nag mi ngi toll ci six millions d'euros ci fàttali moom mii bu saison bi jeexee contrat am day jeex tàkk foofee ca Inter waaye daal dara soppeekuwul moo di jubo am na ci lépp ci doomu Croatie bi ak Juve bu saison bi jeexee day dem foofe ñu jógee ci waa Juve dem ca waa Real de Madrid xibaar bii nag neex na ci supporteru Real de Madrid yi ndax seen défenseur bii di doomu Autriche David Alaba weer na tey ji entraînement na ak club boobee waa Real la ñu bëgg moo di ajjuma bu ñuy football ak Betis doomu Autriche bi mën a dugg ca match boobee am ca ay minutes yu ndaw nga xam ne kat laata ñuy yegg ci 28 mai ñuy final Ligue des dina am tuuti forme bu duggee nag ca final boobee mën a jàppale Eder Militao ñu jógee ci waa Real de Madrid dem ca waa Tottenham ñoom nag ñaar ñi ngeen di gis ñu ngi leen abbe woon ca Serie A ba ca njëkk mooy Christian Romero nekk doomu Argentine moom nag ca Atalanta Bergame la ko Tottenham abbe woon ab défenseur la waaye dafa àndoon ak option d'achat waaye kat Tottenham jamono ji noppi na ngir jënd ko définitive mu nekk seenub sóor keneen ki moo di si Kulusevski moom nag Juve moo ko abaloon Tottenham waaye kat jamono jii noppi nañu ngir jënd ko Tottenham nag la mu bëgg moo di quatre vingt million d'euros bu saison bi jeexee la yóbbu ca Italie xaajale leen ko ñoom ñaar la muy jox Juve mu jox ko ko la muy jox Atalanta Bergame mu jox ko ko ñaari gone yi nekk seen sóor ci fàttali ñaari gone yii nag ci saison bii dañoo jàppale Tottenham ndax jamono ja ñu fay ñëw kat Tottenham doyoon na waar lool waaye jamono jii ña ngay doxal te Tottenham fi mu teg tànkam jamono jii kat bu ko teggiwul day dem Ligue des Champions moo tax ñu bëgg a jënd ñaari gone yi kat dolli dooley club boobee loolee Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci waa Tottenham dem ca waa Barcelone bu ñu sukkandikoo ci Esport ñii di waa Bay yeetu de minute dugg nañu ca course ba ngir kat signéel osmaan Dembélé osmaan Dembélé nag yokk contrat am ca Barcelone dafa tagga témbe ndax kat ba léegi juba mënagul am ci diggante Barcelone ak agent wam di Moussa Sissoko Paris nag ma ca woon waaye jamono jikat Bayern de Munich dugg na te ngir signal ko Bayern nag la muy bàyyi xel moo di Lewandowski bu fa jugee ñu mën a am ku ko wuutu foofee moo tax kat ñu yàcc na yasar ña ngay duñ duñi doomu Sénégal bii tamit di Sadio Mané bokk na ci ñi Bayern ni di bàyyi xel kon nag Bayern de dugg na ci mbiru Ousmane Dembélé ngir signal ko foofee mu dem ca Bayern ni di doxal gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah